Bundaate astafurla day Zeyna ah, Zeyna voilà bonjour Zeyna. bonjour Pape Cheikh. <laughs> moom tey naax nga war a bind naax. naax bi naax wala xanaa ñu laaj téléspectateur yi rek ban naax la seen maam yi di gën a naax. mu neex leen lool <laughs> parce parce que maami yenn saa nag bijou man de ba ma am suñu kër mu ngi may bëgg yem nag yenn saa ma xool ko sax jooy ndax triste après am na am na am na ay boroom xam-xam yu wax ni euh, nit comme bi nga nekkee xale mhm. après boo demee ba màgget da ngay delluwaat nekk xale moo tax bu ñu lay ñaanal ñu naan la yàlla na nga màgget ba ñu lay weer la weer ah comme on fait au après ñu la koy def mhm. bon après euh, ku nekk ak naax naaxam man xam naa bu ma naaxeen ku neex dina naax affaire bi <laughs> bon balaa nga ñuy wax ci hashtag bi horoscope bi lan la si ñuy wax tey mardi 27 euh, octobre. tey moom euh, horoscope bi nag de façon générale lu neex la wax. super ma tey nak yem ak mardi 27 octobre 2015 ma tàmbali ko comme tous les jours nu ñu koy defee ak signe bii di bélier bélier yi nag nee nañ leen bien que seen moral tey ji dafa nekk en baisse et yéen a ngi prévoir de rebondir très rapidement et vous avez raison de le faire la remontée vers la lumière nag est maintenant très proche kon taaxirlu leen tuuti rek bu leen yàkkamti li ci des bëreetul. toro yi nag nee nañ leen tey jii kat ñoom dañoo ressentir le besoin de faire le point ci euh, seen vie amoureuse ñu ngi préférer nag réfléchir ci loolu yëpp dans le calme waaye buñ ci paree nag bu ñu fàtte woo téléphone ki nga xamante ne moom la ñu nekkal ak situation wala décision boo xamante ne jël nañ ko rek nañ ko woo waxtaan ci ak moom. Gémeaux yi nag euh, ñu ngi leen di wax ne nañu jël le temps pour ñu pare terminer li nga xamante ne jox nañ ko tàmbali ba noppi buñ ca jógee nag dinañ mën a consacrer wu ensuite à ce projet bi nga xamante ne commencé na former wu dans leur esprit. Euh, cancer yi nag nee na leen euh, vos amours sont au beau fixe waaye seen carrière nekk na loo xamante ne mi ngi leen di préoccuper bu baax mais dites-vous bien que vous avez de la chance et que la providence sourit kon sañ leen ñeme leen. lions yi nag nee nañ leen tey jii kat ñoom ils sont en train de faire preuve de trop d'imagination nee nañ leen nag bu ñu inquiété wu si ay choses futiles yoo xamante ne jaruñu ko même bu fekkee ne nag tey jii ne sont pas au mieux de leur forme un peu de patience va certainement arranger les choses seen morale nag dina def le reste vierge yi euh, ñu ne leen au lieu ñuy ruminer des pensées négatives wala obsessionnelles nañu xool naka la ñuy def ba mën a gérer efficacement seen i ay finances nañu téléphoner nañu déplacé wu nañu def daal seen kéemtalaay kàttan pour tey jii ñu xool une solution à la gestion de leurs finances après vierge yi nag ma ñëw ci valon balance yi nee nañ leen euh, en ce moment vous possédez peut-être l'art mais pas forcément la manière pour adhérer loo nit ñi ci seen ay projet seen i ay xalaat wala seen i ay valeur il est souhaitable nag de démontrer sans pour autant tout démonter maanaam daal ci gàttal seen soxla wala li ngeen bëgg am mun ngeen ko jot ci nit ki te du tax mu mer mën ngeen ko kon jéem leen ko scorpion yi nag ñu leen di diggal tey ji kat ci journée bi nañu profito euh, mettre à jour seen i ay compte wala ñu ranger seen i ay tiroir wala def un tout petit peu le ménage ndax buñ ko defee kat cela vous permettra de vous mettre à jour dans votre tête sagittaires yi tey jii nee nañ leen am na une personne boo xamante ne une personne qui bu veut du bien boo xamante ne dina retenir particulièrement seen attention tey jii mun ngeen ko wóolu nag wóolu sincérité am waaye yéen ñi yéen ñi seen bopp nag dafa mel ni yéen yéen a ko bëgg ménager bugg leen ko sonnal torop euh, ba tax na daal nanguwu leen ubbeeku waaye seen patience dina leen dimbale ba nga xamante ne barrière bi euh, bi leen di séparer ngeen mun ko dépasser très facilement Capricorne yi nag ñu ngi leen di wax ne bu ñu accordeel seen temps aux hypocrites wala nit yi nga xamante ne dañ leen di jéem a nëbb la vérité alors nañu jéem tamit bañ a juger waaye loolu yëpp bu mu leen teree ñu wax seen xalaat bu fekkee ne d'accord ñu ak nit yooyee nañ ko fësal ba ñëpp xam ko beneen conseil boo xamante ne tamit ñu ngi leen di koy jox nañu jël un peu de distance euh, ci nit yooyu bu ñu ko defee rek tout ira mieux verseau yi tey nee nañ leen une amélioration ci seen situation financière dina am te loolu dina jóge ci nit koo xamante ne kat une rencontre inespérée lay doon euh, vous avez tamit nag du mal à prendre euh, une décision concernant un problème boo xamante ne euh, dafa anodin d'apparence ci gàttal daal ci zaahir dafa mel ni problème boobu du problème waaye yéen ci seen bopp def na leen souci bu baax a baax waaye bu leen ci jaaxle ndax tey ji kat di ngeen trouver la solution. pare ak poisson yi nag nee nañ leen il n'y a pas de souci à vous faire parce que kat ñu ngi def euh, on se fait une idée fixe de vous une une idée tout à fait exacte seen souci de la vérité nag euh, tey jii dina leen jox une agressivité boo xamante ne elle est complètement inutile dans une situation boo xamante ne elle est parfaitement claire euh, tey jii kat lépp luy crainte ak doute mun ngeen ko chasser de votre esprit dàq leen lépp luy crainte lépp lay doute parce que problème amul yéen gis problème rek Pape Cheikh lool la ñu andi woon ci horoscope tey yem ak mardi 27 octobre 2015. voilà et les autres qui m'énervent ku nekk di laan sa morom gis na la gis na la <laughs> gis na la gis kooku daal gars gis na ba tey de kenn ma non man gisuma tey de gis na la Zeyna gis na la est-ce que Zeyna gis na leen gis na leen ah man gisuma de. c'est ce qui se dit maintenant à chaque fois muy def horoscope bi et puis booy nekk ci kaw booy xale yu góor yi ci ginnaaw <laughs> ku nekk daal sa borom gis na la gis na la gis na la <laughs> est-ce gis na leen en tout cas man gisuma parce que man horoscope bi su neexee rek la may gis su naqaree du ma gis bon ça o ah, comme si comme ça quand même wow wow wow wow wow tey saa yoo waxee du am bon gis nga ma voilà est-ce que gis na leen xaw en tout cas horoscope bi comme chaque matin ñu la ci gërëm bu baax.